الأكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن Le message du Coran هادي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 Nous sommes ensemble pour poursuivre avec euh, le rôle central des anges dans notre vie. Nous avons déjà vu qu'ils s'occupaient de toutes les affaires de l'univers. Al-Mudabbirati Amra, de la mort, des phénomènes naturels, du paradis de l'enfer et même du fonctionnement de nos propres organes. mbokk ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa taala mi nu wërsëgal ndaje bi ngir ñu mën a wéy ci li ñu nekkoon ci taxawaayu malaaka yi ak seen solo surtout ñun ci suñu dund ndax yàlla wax na ni ñoom ñooy mudabbiraati amran ñoom ñooy taxawe mbir yépp gisoon nañu ko mbiru dee mbiru lu jëm ci liy doxal kawnu bi mbiru aljanna mbiru safara xataa nga ni nga yëngal sa loxo nga xef sa bët malaaka moo taxaw di dox ci service boobu nous connaissons tous al-kiramul katiboun ce sont les deux anges affectés à chaque individu à partir de sa majorité jusqu'à sa mort pour noter tous ses actes toutes ses paroles dans le registre de sa vie Le verset 17-18 sourate Qaf nous dit, rappelle quand deux anges, un à sa droite, l'autre à sa gauche, recueillent la moindre parole de la personne, nul ne prononce une parole sans qu'un surveillant soit prêt à le noter, à le recueillir mbokk yi ñun ñëpp xam nañu kiraamun kaatibiin kiraamun kaatibin mooy ñaari malaaka yooyu nga xam ni bu nit ki kàllafee rek yeggee ci majorité rek ba muy génn àdduna yàlla daf kay affecté ñaari malaaka yooyu ñu taqoog moom lu mu jëf ñu bind lu mu wax ñu bind ci carnet jëfi dundam suratu qaaf dinu ko fàttali mu ne is yatalaqal mutalaqiyaan an yamini wa an il shimali mu ne fàttalil ba nga xamee ni ñaari malaaka yooyu kiraamun kaatibiin ñu ngay daje ci nit ka kenn ki fare ndeyjooram kenn ki fare càmmooñam ñu taxaw di ko fuuglu maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid du wax benn kàddu du jëf jenn jëf lu dul ñu nga ni jog pour bind ko ci carnet jëfam mais ami auditeurs, l'ange qui est à la droite de l'individu inscrit uniquement ses bonnes actions, tandis que celui qui est à sa gauche ne note que ses mauvaises actions. Et par la grâce d'Allah, dès que l'individu fait une bonne action, immédiatement l'ange de, de la droite le note. Mais quand il fait une mauvaise action, l'ange de la droite demande à l'autre d'attendre. D'attendre peut-être qu'il va demander pardon Peut-être qu'il va réparer sa faute. S'il ne le fait pas, l'autre écrit. Ainsi dit le verset 10, 12, sourate Infirat. Vous êtes surveillés par des gardiens, de nobles anges qui notent tous vos actes. S'ils n'étaient pas nobles, ils n'auraient pas eu aussi de patience envers nous et nos fautes. mbokk yi malaaka bi nekk ci suñu ndeyjoor mooy bind lépp ci lu baax waaye ki ne ci càmmoñ mooy bind lépp loo xam ni jëmm ji def na ko ci lu bon waaye comme ki ne ci ndeyjoor mooy seef bu bu ñu defee lu baax rek moom day dal di bind ci si waaye bu nit ki defee lu bon dafa naan kële bu ko bindagum xaaral tuuti mën nay am mu jéggalu mën nay am mu jubbanti jëf ji bu ko jubbantiwul nag ñu door a koy bind gis nga mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala moo tax yàlla bi mu leen di melal mu ne inna aleykum la xaafisin yéen a ngi ànd ak ñaar ñoo xam ne ñu ngi leen di surveiller waaye kiraaman kaatibin ay bindkat lañu yu tedd yoo xam ne dañu lay muñal yéene wu ñu la bindal lu bon yaalamuuna ma tafaaloon ànd ak ñoom lépp loo jëf nag xam nañu ko looy xalaat sax xam nañu ko savez-vous amis auditeur que see nous-mêmes qui tenons le registre ce ne sont pas les anges qui le tiennent c'est nous qui Surat Isra, verset 13-14 nous dit, chaque personne a le registre de ses actions attachées à son cou. Et le jour du jugement, nous le, le lui, nous le, le lui remettrons ouvert et lui dirons, lis ton registre. Aujourd'hui, tu seras ton propre juge. mbokk est-ce que xam nga ni du malaaka yi ñooy téye carnet bi gis nga ci seen teraanga ak seen mando ak seen tedd yow la ñuy jox carnet bi nga téye ka moom la soratu yi di wax ñoom bind rek lañu ci am mu ne wa kullu insanin aldamnaahu taairahu fi unuqi benn jëmm ju nekk ñu ngi ko wékkal carnet jëfam ci loosam moom moo gàddu carneem wa nuxriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshura bu bis nag ñu génneel ko téere boobu jox ko ko fekk téere baa ngi ubbeeku iqra kitaabak gisal atte bi rek ñu ne ko xoolal sa téere jàngal li nga def kafa bi nafsika al yawma alayka xasiban yow yaay atte sa bopp doy nga sëkk ci atte sa bopp suratul isra la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui nous a informé que des anges se relaient auprès de vous nuit et jour à la prière de takusan asr et la prière de soubh à l'heure de la prière de soubh ceux qui ont passé la nuit avec vous montrent vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire leur rapport Allah leur demande alors qu'il sait mieux qu'eux que faisait mon serviteur à votre départ les anges disent quand nous les avons quittés ils priaient et à notre retour nous les avons trouvés en train de prier c'est donc les salatul asr et les salatul subh ki gën ci ñu yàlla bind yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax nañu te lépp lu mu wax mooy dëgg mu ni ay malaaka dañuy monter garde ci yéen ñu ngiy joxante lenge yi nag di wuutante di remplacente ci julli tàkkusaan ak julli suba malaaka yi nga xam ni ñoo fanaan ci yéen ñëwoon ca tàkkusaan ba suba bu julli suba jotee dañuy dem yàlla laaj leen fekk yàlla moo gën a xam kayfa taraktum ibaadi lu ngeen bàyyi sama jaam ñi ñu koy def ñu ne ka taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun ñun ñu ngi leen bàyyi ñuy julli te ba ñuy dem ci ñoom ñu ngi leen fekk ñu julli ndax ca tàkkusaan lay ñëw boo ko jullee ci waxtu wi rek fekk nañu la fa boo jullee suba ci waxtu wi buñ demee rapport bii lañuy ñuy def ainsi donc nous devons faire l'effort d'être assidus à la prière, afin que rien d'autre que la prière ne figure dans le rapport que les muta'aqiboun, les deux anges qui montent la garde à Takusan et Soup, n'auront rien d'autre à rapporter que nous les avons trouvés en train de prier. Et à partir de ce moment, c'est comme si nous avions passé toute notre vie en train de prier li nu yonent bi alayhi salaam wax dafa tax ñu war a farlu ci julli farlu ci julli ngir malaaka yi bu ñu demee du ñu am lenn lu ñuy nettali ci ñun lu dul ñu ngi ko bàyyi muy julli ñu ngi ko fekk muy julli bu ñu dem mukk nan ñu ngi ko bàyyi mu ngay njoganalu di njaayeen di def ci waxtu tàkkusaan wala mu ngay biddanti ni nga xam ni ñi sàggane seen diine mooy seen dund ci àdduna yi lu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci woy dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal à côté de Kiram Moulkatibine qui écrivent chaque humain et chaque djinn est accompagné les deux gardes du corps qui nous contre tous les dangers, contre les maladies, les malheurs, les méfaits des shaytans humains et djinns. Quand Allah subhanahu wa décide que cela ne nous touchera pas. Sourate Ra'd verset 11 dit l'individu a devant et derrière lui des anges ki se relaient pour le protéger sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala mbokk yi li gën a siiw mooy malaaka yi bind suñu jëf nekk suñu ndeyjoor ak suñu càmmooñ waaye nag yeneen ñaari malaaka ngi ànd ak ñun ko kenn mu ngi ci suñu kanam kenn mu ngi ci suñu gannaaw ñooñu ñooy garde du corps yi xafasatu la leen alquran tudde xafasatu yooyu lépp lu yàlla nammul pour mu dal nit ki ñoom ñoo koy fekk di ko dóor mu dali fële moo xam dange la moo xam feebar la bu corona jëmoon ci yow fekk yàlla namm ko malaaka yi ñoo koy wëlbati moo xam ay jafe-jafe la moo xam pexe seytaan moo xam nit la moo xam jinne lenn lu yàlla dogalul ni dafa war a dal nit ki rek xafasatu ñoom ñoo taxaw di ko aar bu dul woon loolu xam nga ne ku nelaw dootoo yeewu di day nelaw rek ay mbóotay fees ci eh, bakkanam ak gémmiñam ay kañe ñooy ñëw lekk ka moo tax mu wax suratu raad mu ne lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min xalqi xalfihi yaxfadunahu min amrillah mu ni kenn ku nekk ci ñoom boole nak ak ñaari malaaka yoo xam ni kii ngi ci kanamam kii ci gannaawam ñu koy aar ci dogalu yàlla subhanahu wa Ce verset explique le dire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te rater. Mais ce qui t'a raté ne pouvait non plus jamais t'atteindre. La réponse est dans la suite du verset qui dit qu'Allah ne modifie pas la protection d'un peuple que en fonction de son changement de comportement. Ainsi, quand Allah décide de punir un peuple, décide de punir quelqu'un, personne ne peut l'empêcher, car il n'y a pas de protecteur à part lui. mbokk yi laa ji lahu muaqibatun dafa ñuy saraal kaddu yonent bi alayhi salaam bu siiw ba ndax xam nga ma asabaka maa lam yakun li yuxtik nee na li la dal mënula woon mooy mukk waaye maa axta ak lam yakun li yusiba li nga xam ne mooy na la rëcc nga ci mënula woon dal mukk léeg-léeg nga gis nit mu rëcc ci mbir di fëgg dënnam ha man déedéet alxafazatu ñoo fa jaar alxafazatu ñooy fekk oto bu moxoñoo nga fekk juróom fukk dee nga fekk liir yu ndaw yee yëpp toog weñ sax du leen xuri moom la yàlla di wax mu ni inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla nag du dindi protection bi ci ay nit lu dul ñoom ñoo soppi seen bopp te na nga xam ni isa arada allahu bi qawmin suan fala maradda bu yàlla nammee ci nit ay lor kenn mënu ko fekk mukk wa ma lahum min dunihi min waal ñoom day bu ñu fi jéggee yàlla amuñu kenn ku leen di aar amuñu kenn ku leen di sàmm enfin amis auditeurs je vous donne seulement deux exemples deux exemples qui montrent que ce sont les anges qui activent aussi tous les phénomènes de la nature tout est sous leur contrôle tout est sous leur supervision mbokk yi damay doyloo rekk ñaari misaal ngir képp kenn ci nun xam ni malaaka yi lépp lu yëngu ci kaw nu bi ñoo ko yëngal lépp ñoom ñoo koy sàmm lépp ñoo ko taxaw quand les habitants de Taïf chassèrent la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui à de pierre un nuage vint se tenir au-dessus de sa Et dit-il, j'aperçus Djibril dans le nuage. Djibril me dit, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la réponse de ton peuple et t'a envoyé Malakul Jibal, l'ange chargé des montagnes, pour que tu lui ordonnes ce que tu veux qu'il fasse d'eux pour te venger. L'ange des montagnes me dit, ô oh Muhammad, je suis à ton entière disposition. Si tu le veux, je les écrase tout de suite avec ces deux montagnes xoolal ñu ngi fàttaliku Taïf ba Xuraysh bundu xatale yonent bi alayhi salaam ak saxaaba yi mu dem fa di wut wàll ñu boole ko ak gune ye ñu sànni ko xeer génne ko dëkk ba mu ne bi ma génnee dëkk bi rek benn xiin moo ñëw tiim ma di ma keral ma xool rek seen jibril mu ngi ci biir eh, xiin boobu nuage bi woo ma ni ma inna allaha qad samia qawla qawmika lak wa ma raddu aleyk yàlla gis na ni sa nit ñi jëflanteek yow loolu neexu ka yabal na la malakul jibaal malaka bi nga xam ni mooy toppatoo mbiru montagne yi ak xeer yi ngir nga sant ka lu la neex mu def ko ci ñoom noona rek malaaykatul jib malaka malakul jibaal <coughs> nuyu yonent bi alayhi salaam ni ko ah daalika mbir bi de noonu la yàlla daal moo ma wax ni fa ma chita in chit loo ma sant dana ko def mu xelal yonent bi alayhi salaam ni ko yow da nga ma waroon sax wax ma tànc leen ci ñaari montagne yi ma rey leen daaneel montagne bi ci seen kaw la meilleure des créatures Le messager de la miséricorde lui dit, non, ne le fais pas, laisse-les. Car j'espère qu'Allah subhanahu wa fera sortir parmi leurs descendants des gens qui l'adorent sans rien lui associer. Puis il se tourna vers Allah subhanahu wa lui tendit les mains et lui dit, Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. déggal tontu yonent bi sallallahu alayhi wa ali nga xam lu tax yàlla ni moom mooy mabuusun rahmatan lil alamin dañu koy yebal ngir mu yërëm mboolem jaam ñi waxuma mu yërëm ñi gëm rek de yërëm yéeféer yi bi ko bi waxee lii mu ne kër déedéet bul def loolu mukk arju an yuxrij allah min aslaabihim man yacbudu llah waxda laa yushriku bihi shay'a waay waaye man damay yaakaar di ñaan kay ñoom ñu yàgg fi di dund ba yàlla def ci seen njaboot ñoo xam ne ñii dañuy wéetal yàlla di ko jaamu duñu ko bokkaale dara daldi di dumóoyu malaaka yi tàllal loxoom yàlla subhaanahu wa ne ka allahumma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun yow suma borom baal leen baalal sama nit ñi gis nga lii ñu ma def dañu xamul rekk moo tax ñu def l'hivernage que nous vivons, la pluie, les récoltes sont à la charge des, des anges. Un jour, dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un homme se trouvait sur un terrain vague quand il entendit une voix dans un nuage dire verse l'eau dans de pluie dans le jardin d'un tel. Immédiatement, il vit le nuage dévié vers un terrain rocailleux et y l'eau de pluie qui coula vers les champs, et particulièrement vers un des champs. L'homme suivit l'eau qui le mena à un champ où il trouva un homme qui était en train d'endiguer l'eau de pluie dans son jardin. Il lui demanda son nom. Le jardinier lui dit son nom et il se trouva que c'était le nom qui était prononcé dans la, dans le nuage. mbokk yi li jëm ci taw bi nawet bi gàncax gi ñu ne nawet bi baax na baaxul li ñu góob doy na doyul loolu lépp malaaka yi ñoo koy toppatoo ki gën ci yàlla bind nettali na mu ni bis benn waay day dox rekk ci digg àll bi dégg kàddu yu jóge ci benn xiin moo xam ni mu ngi ñuul kukk fees ak ndox mu dégg kàddu bi naan que demal nga nàndal toolu diw nàndalal toolu diw rek mu mu ni xiin mi dal di wëlbatiku jàdd jëm ci benn yoon sotti fa ndox mi ndox moomu wal nag waa ji topp ndox ma ba mu yóbbu ko ci benn jardin mu ngi fekk benn waaye ngi ci jardin bi yor jumtukaayu bayam di di di xool naka lay tasaare ndox mi ci biir toolam mu ne ko yaa abdallah masmuk mu ne ko yow nan nga tudd waa ji wax ko turam mu nekk ni tur bi mu ko wax mooy bi mu déggoon ci biir xiin bi le jardinier lui demanda pourquoi cette question l'homme lui dit j'ai entendu une voix dire dans le nuage qui a déversé cette eau que voici dans ton jardin arrose le jardin d'un tel Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quel est le bien que tu as fait pour mériter une telle faveur? L'homme lui dit, puisque tu le dis, moi je ne fais rien d'autre que diviser ma récolte en trois parties. Une partie pour la zakat, une partie pour me nourrir et nourrir ma famille, et une partie que je réserve pour les prochaines semences. mbokk yi waa ji laaj kenn lu tax nga may laaj sama tur mu ne ka man dama yéemu ndax dama dégg ci xiin mi sotti ndox mi ngay toppatoo nii baat bu wax ni dem leen ngeen nandal toolu diw sotti leen ndox mi ci toolu diw léegi nag dama lay laaj yow ban mbaax ak ban njekk nga def ba am xiiwal bu toll nii mu ne ko ah amma isa xulta comme loolu nga wax de man daal gisuma lenn lu ma def xam naa ni daal lépp lu génn ci sama tool bii dama koy séddale ñetti xaaj benn bi moom lay dundee mag sama njaboot benn bi moom lay génne azaka benn bi moom lay denc ngir def ko sama jiw mbokk xoolal tey bu fekkoon ci suñu réew mi la kii de bon dañu koy dañuy wax kii dootul nit sax yàlla comme moom malaaka yi dañuy wax turam di yabal taw yi di yebal xiin yi sottil ci toolu diw ami auditeur je souhaite sincèrement que tous les jardiniers tous les cultivateurs suivent cet enseignement du prophète Mohammed paix et salut sur lui que nous retrouvons dans le Coran ashabul jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin Si nous respectons ces enseignements du Coran et de la Sunna, nos hivernages seront riches d'une récolte bénie. Nos pluies seront des pluies bénies qui ne nous causeront plus uniquement que des inondations, des, des bâtiments qui tombent, des vies qui s'en vont. mbokk yi képp kenn ci ñun war na góorgóorlu bu baax rawatina nag ñi nga xam ni ñoom seen liggéey mooy bay ngir ñu topp jàngale bi di génne asaka ci li ñuy góob lu topp lii yonant bi alayhi wax te ñu koy fekk ci alquran ashaabul jannati bu ñu ko defee daal sunu nawet yëpp dana nekk ay nawet yu barkeel sunu ndoxi taw dana wëlbatiku jóge ci inondation defal nu taw yoo xam ne dafay dundal gàncax gi dundal ndundat dundal jàmm ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loolu yomb na borom bi yàlla na nu ko defal ذلك العظيم زارك التسليم من La meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a parlé de l'existence de malaïkatu sayyahoun c'est-à-dire des anges qui circulent uniquement sur terre pour me transmettre, c'est le prophète alayhi salam qui parle, pour me transmettre les salutations de ma communauté. Donc chaque fois que tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, un ange est allé lui dire Sokhna Adja Abi a prié sur vous et le prophète alayhi salam prie sur vous. yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax nañu ni am na ay malaaka yoo xam ne sayyaaxuun la tudd mooy ñoo xam ne dañuy dox rek ci kaw suuf lu tax ñuy dox ci kaw suuf yonent bi alayhi salaam mu ni ñooñu yàlla daf leen yebal yuballighuuni an ummati assalaam pour ku julli ci sama xeet wi ci man allahuma salli ala muhammadin wa sallim ñu ñëw ni ma diw julli na ci yow bu ko defee man it ma julli ci kooku mbokk xoolal teraanga bu rëy boobu ak teddangal boobu salaatu ala nabi rek moo nu ko mën a may il y a d'autres malaïka sayyahoun d'autres anges qui circulent parcourent les rues à la recherche de groupes qui font le zikr dit le prophète Mohammed paix et salut sur lui dès qu'ils voient des gens en train de faire le zikr ils disent aux autres venez voici ce que nous cherchons Puis il les couvre de leurs ailes et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux la sakina le hadith est connu de tous mbokk yi am na yeneen malaayika sayyaahoon ñoo xam ni itam dañuy dox ci kaw suuf bi yoon du pour euh, seet salatu ala nabi waaye seet ñi nga xam ni mbooloo boo xam ni ñu ngi toog rek di tudd turu yàlla bu ko defee bu ñu ko gisee rek dañuy woowante ñëw leen ñëw leen liñ doon wër ma ngi nii bu ñu ñëwee daldi leen di wër daldi leen di tàntal seeni laaf am na yërmande bu tudd sakkina moom la yàlla di wàccee ci ñoom xadis bi gën na gudd li waaye ñëpp xam nañu kàddu yu siiw yu tedd yi ils rendent compte à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur dit Ils disent, ils sont en train de te remercier, de te glorifier, de chanter tes noms et attributs. Allah leur demande, est-ce qu'ils m'ont vu? Ils disent non. Que ferait-il s'il m'avait vu? Est-ce qu'il, euh, de quoi cherche-t-il à se faire pardonner contre l'enfer? Ont-ils vu l'enfer? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le paradis. Ont-ils vu le paradis? Non. C'est un long hadith. Allah leur dit, sachez que je leur ai pardonné. Pardonner pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire le zikr. Les anges lui disent, Seigneur, attention, un tel est parmi eux, c'est un malfaiteur. Il n'est pas là pour faire le zikr, il est là pour un autre besoin. Allah leur dit, c'est vrai, mais ces gens-là sont ceux qui, tous ceux qui s'assoient avec eux ne seront jamais malheureux. Mbokk yi malaaka yi bu ñu gisee xalaqatu zikr ñiy def zikr dañuy dal di leen di wër dem wax yàlla ni ko gis nañu sa jàmm yàlla ni ko ñoom lu ñuy def ñu ngay zikr ñu nga lay bàkk ñu ngi lay tagg mu ne ndax ñoom dañu ma gis ñu ne ko ñoom kay gisuñu la mun leen ñoom buñ ma gisoon bon nan la ñuy def mu ne leen ñoom lan la ñu soxla malaaka yi ni leen ñoom de aljanna rek la ñu soxla mu ne ndax dañu gis aljanna mu ne gisuñu ko mu ne waaw ñoom bu fekkoon gisoon nañu ko bon nan la seen mbir di demee yàlla laaj leen ni leen lan la ñuy muslu ñu ne ko safara de lañuy ñuy muslu ñoom mu ne leen ndax gis nañu safara mu ne leen gisuñu ko mu ne leen ñoom bu ñu ko gisoon bon nan la ñuy gën a te ragale safara waxtaan wa mu ngay mujj ci yàlla ni leen fa inni qad xafartu lahum xam leen ni ñooñu toog di def zikr jéggal naa leen baal naa leen seeni bàkkaar malaaka yi ni leen rabbana yow sunu boroom diw ma nga ci seen biir saay-saay la kàccoor la ñëw fa pour zikr de dafa ñëw ngir soxla su mu amoon rek toog ci ñoom yàlla ni leen moom itam baal gi da koy ëmbaale ndax humul qawm laa yashqa bihim jalisuhum mu ne gis nga ñooñu toog di zikr ñooy nit ñi nga xam ni kenn du toogandoog ñoom ba tos toskare fekk la ci alkande fekk la ci enfin amis auditeurs il y a des anges affectés uniquement pour implorer le pardon pour tout musulman tout musulman qui prie en faveur de son frère en son absence ce sont malaïkatu doua les anges de la prière, de l'invocation. La meilleure des créatures. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit, la prière du musulman pour son frère en son absence est agréée, acceptée. Un ange est chargé de se tenir à côté de lui et de dire Amin wa lak bi mithli dalik. Amin et qu'Allah t'accorde à toi aussi la même chose chaque fois que le musulman prie pour son frère en son absence mbokk yi am na yeneen malaaka yoo xam ni malaayikatu du'a la ñu tudd malaaka yi nga xam ni pour ñaan pour nangu ñaan ñooñu yàlla daf leen yebal ñu taqoo ak jullit bi ngir saa soo xamee ni jullit boobu ñaanal na mbokk jullitam fu mbokk jullit ma nekkul ñoom ñu taxaw wax amiin yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax na mu ni daawatul mar'i l li axi bi dahri l qaybi mustajaaba mu ne gis nga bépp ñaan boo xam ni jullit mu ngi koy ñaanal mbokkam fu mbokk ma nekkul mu ni day nangu ndax yàlla nga benn malaaka boo xam ni daf ka ko wakiil jamono bu ñaanalee mbokkam yiw xaalal malak malaayika ba ni amin walaka bi mithli dalik amin yow itam yal na la yàlla defal lu toll na lii nga ñaanal sa mbokk jullit bi bon gis nga bokk na ci façon wu ñaanal sa bokk bopp yi nga xam ni dafa wér ni day nangu la nga soxloo nga ñaanal ko keneen loolu dana tax sax day génne iñaan ak soxar ci sa biir xol dangay ngay yéene ñëpp jàmm xam ni jàmm jooju nga yéene mooy dellusi ci sa kaw nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yiy mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal الأكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله Je sais qu'il est impossible de dire tous les avantages que nous tirons de l'existence des anges. C'est pourquoi je vais rappeler quelques valeurs, quelque caractères que nous devons apprendre des anges. Le premier, c'est la pudeur, al le kersa, la meilleure des créatures. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous apprend que les anges éprouvent de la pudeur quand il dit à propos de de Sayyiduna Ousmane n'aurais-je pas de la pudeur envers un homme C'est Ousmane ibn Affan, pour qui les anges eux-mêmes éprouvent de la pudeur mbokk yi sunu jataay yi bu doon junniy jataay sax mënunu ndar képp li nga xam ni moo aju ci xéewal yi jóge ci malaaka ak njariñ bi nu malaaka amal ba tax yàlla boole ko ci ponku ngëm yi li ci des kay mooy xool lenn ci ay mbaax lenn ci ay jikko yoo xam ne dañu ko war a roye ci ñoom malaaka yi bi ci njëkk nag moom mooy kersa kersa yonent bi alayhi salaam dinu jàngal ni malaaka yi dañuy am kersa ci ay nit ba muy wax ca digganteem ak Seydina Ousmane mu ne ala astahi min rajulin tastahi minhu l malaika est-ce que man du ma rus Ousmane mi nga xam ne malaaka yi dañu ko rus le deuxième c'est le fait d'éprouver du malaise devant le mal quand vous voyez du mal que ce mal-là vous déplaise qu'on ne tolère pas le mal comme les anges la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui a dit que celui qui mange de l'ail de l'oignon ou du poireau Et j'ajouterai, celui qui fume du tabac ne s'approche pas de notre mosquée. Il chasse ces gens-là de la mosquée, car, dit-il, ce qui indispose les hommes indispose aussi les anges. Il a aussi dit, les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une statue, et les savants disent une photo ou une image accrochée au mur. yi beneen bi mooy di naqarlu jamono boo xamee ni lu ñaaw nit ki gis nag ni ko malaaka yi di naqarloo ni mu leen di mettee yonent bi sallallahu alayhi wa wax na mu ne képp ku lekk laaj walla soble wala poireau mu ni bul jege mukk suñuy jàkk bu fa ñëw mën nga ci dolli ku tux cigarette ba sa yére yëpp mu ngay binni ci sigara bul ñëw ci suñu jàkka ñu ne lu tax ñooñu borom xet yu bon yi buñ ñëw ci jàkka ji mu ni fay nal al malaikata tataazza mimma yataazza banu aadam mu ne ndax lépp loo xam ne lii day metti di di lor doomu aadama yi loolu dafay dafay lor malaaka yi waxaat na mu ni te lu jara bàyyi xel la inna al malaayikata laa tadxulu baytan fihi kalb wala suura mu ne malaaka yërmande yi du ñu dugg kër goo xam ne xaj mu nga fa walla ay statue yenn boroom xam-xam yi ni suura mooy photo rek mooy image rek waaye loolu li muy firi mooy malaaka mbugal ñoo fay dugg malaaka yi lor ñoo fay dugg mais malaaka buy indi yërmande moom bu jubee buntu kër googu day walbatiku na jibril wëlbatiku woon ba mu jubee buntu kër yonant bi alayhi salaam fekk ay Aïcha mu ngi takk rido boo xam ni ñu ngi ci dessiné ay fas yu naaw dessiné ci ay yenn ndundat amis auditeurs nous devons imiter les anges en faisant de l'adoration notre première et unique activité regarde les anges ne dorment pas ils ne mangent pas Ils sont en permanence dans la recherche de la satisfaction d'Allah, en permanence dans le zikr, dans la louange. Le verset 19-20 sourate Les Prophètes dit: Ceux qui sont auprès d'Allah, ce sont les anges, ne se détournent pas de son adoration par orgueil, au contraire. Ils ne se lassent point de le glorifier nuit et jour sans arrêt. Ainsi l'adoration est leur seule vie. leur seule source d'énergie comme il doit en être de même pour nous mbokk beneen bi ñu war a royee ci malaaka yi mooy def jaamu yàlla rek mu nekk suñu yitte boo xam ni mooy principal yitte ci kaw suuf leneen looy def lu nekk danga ko war def ngir mu dimbali la ci nga mën a jaamu sa borom malaaka yi ñoom soxlawuñ nelaw soxlawuñ lekk bon yow booy nelaw di lekk na nekk pour am kàttan goo jaamoo sa borom ñoom saa su nekk ñu ngi wut ngërëmali yàlla boo demee suratul anbiya borom bi moo leen fay seedeel mu ne wa man indahu laa yastakbiruuna am ibadatihi malaaka ya fa moom ñooñu duñu rëy rëylu ci jaamu seen borom wala yastahsiruun duñ ci toqi yusabbihuna layla wan nahaar laa yafturuun ñoom guddeeg bëccëg ñu ngiy sàbbaal ba bëccëg ñu ngi kañ seen borom duñu arrêté mukk amis auditeurs nous devons imiter des anges leur crainte révérencieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit sourate l'abeille verset 49 50 toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur terre se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. De même que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Les anges craignent leur Seigneur et font exactement ce qu'il leur ordonne. Surat Al-Anbiya mbokk bokk na ci lu ñu war a jàngate ci malaaka yi mooy ragal gi ñu ragal yàlla subhanahu wa ta'ala. yàlla mu ne walillahi yasjudu man fi samawati wa ma fi ard lépp li ci asamaan seeg suuf mu ngi jaamu sa seen borom di ko sujjootal min daabatin ci lépp luy dukkat ci kaw suuf wal malaa'ika ak nag malaaka yi mu ne malaaka yooyu hum laa yastakbiroon du ñu rëy rëy lu mukk yamu ci loolu yaxaafuuna rabbahum min fawqihim ànd ak li ñuy jaamu seen borom yëpp ñu ngir ragal seen boroom mi leen tiim wa yafaluuna maa yuumaroon di def li mu leen sant xoolal nun ku jaamu yàlla tuuti rek nit ñi commencé di la ko jiiñ rek daanaka sa ragal yàlla jeex na malaaka yi defuñu loolu ànd ak li ñuy jaamu yàlla du dakk du dog yaxaafuuna rabbahum min fawqihim fu ñu toll ñu ngi tiit ragal seen borom di jaaxle ci seen mbiri bopp il dit sourate Ra'd verset 13 sous l'emprise de sa crainte le tonnerre glorifie Allah et le loup les anges bokk xoolal ni nga ragale dënu bi dënu yàlla ni dënu boobu yusabbihu raad bi hamdihi dënu foo ko dégg rek tatatat boobu alhamdulilah lay wax wal malaikatu malaaka yi it ñu ngay sàbbaal di sant seen borom min xiifatihi ngir ragal ka gis nga dënu ragal yàlla moo tax muy tir malaaka yi naka noonu ragal yàlla nga xool ñu ni ñu ragale dënu bu fekkoon ragal nañ yàlla kay ñu ragal dënu dënu buy wàcc boo waxee subhanallah ci li gën a gàtt dal mukk ci sa kaw nous devons aussi imiter des anges leur obéissance absolue à Allah subhanahu wa ta'ala qui témoigne verset 6 sourate Tahrim les anges ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah. Au contraire, ils font exactement ce qu'il leur ordonne. Il ajoutera sur les prophètes. Les anges sont des serviteurs honorés, honorables, qui agissent sur ordre d'Allah et ne le devancent jamais. mbokk yi bokk na ci lu ñu war a roye ci malaaka yi mooy topp ndigalu yàlla ak wommatul mu nga leen di seedeel suratu tahrim mu ne laa yaasuuna allah ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun ñoom duñu ñu mooy mukk ndigalu yàlla te lépp lu mu leen sant dañu koy def muy teg ca suratu lambiya mu ne la bal ibaadu mukramuun lii mbir mooy malaaka yi ñoom ay jaam yu tedd lañu laa yasbiquunahu bil qawl du jiitu yàlla ci kàddu wahum bi ya yaamaluun te ci ndigalam rekk la ñuy dox xoolal ñun ñaata yoon la ñuy jiitu yàlla da ngay gis koo xam day wax ba pare door ni waaw lu ci yàlla wax nag amis auditeurs nous les anges pour leur amour de ceux qui aiment Allah subhanahu wa les anges aiment ceux qui aiment Allah la meilleure des créatures Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit que quand Allah aime un serviteur, il dit à Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril l'aime et annonce aux habitants des cieux, hey, Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges, tous les habitants des cieux aiment cette personne et déposent son amour sur terre. Tous ceux qui le voient, ils l'aimeront naturellement. Il en est de même quand Allah subhanahu wa ta'ala déteste un serviteur, cette rancœur sera dans l'eau de pluie, dans les récoltes, dans l'air qu'on respire, et dès que vous le voyez, vous le détestez sans même le connaître mbokk yi li ñu war a roy ci malaaka yi mooy di bëgg nit te yàlla tax di bëgg ñi bëgg yàlla wax na moom yonent bi alayhi salaam mu ni yàlla day sopp ay jaam bu soppee jaam day woo jibril ni ko jibril sama jaam bi sopp naa ko sopp ko jibril sopp jaam bi wax waa asamaan yépp ni leen yàlla sopp na jaamam diw yéen it sopp leen ko ñoom ñépp ñu sopp ko mu ne bu ñu ko soppee nag malaaka yi wax naa la léegi nii lépp luy dox ci kawnu bi ñoo ko yor kenn ku ci ne li nga yor ci kawnu bi da nga cay tegal nit kooku cofeel cofeel googu wàcc ci kaw suuf ku naan ci ndox mi naan cofeelam ku noyyi ci ngelaw li noyyi ci ku lekk ci gerte gu bees gi lekkaale ci boo ko gisee xam ka ak ñàkk xam danga naan wax ji neex na ma rek noona itam bu bañee nit noonu la ñuy wàccee mbañeel googu ci lépp luy dox ci nu bi boo dëggee ci suuf si rek dangay ngay dëggaale mbañam boo ko séenee rek xamuloo ko sax da ngeen di rombante rek waaye da ngay yëg ni kii neexu neexuma màkk bañ tey jotewu leen dara pourtant amis auditeurs il y a une autre caractéristique à imiter chez les anges c'est de prier pour ceux qui croient en Dieu subhanahu wa ta'ala dire souvent Allah agrée les croyants Allah pardonne aux croyants et de maudire ceux qui sont les mécréants et les hypocrites Sourate le Pardonneur nous dit, les anges qui portent le arche et ceux qui sont autour célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et l'implorent de pardonner les croyants. Les anges du arche, si tu es croyant, ils sont en ce moment en train de dire, Seigneur, ta miséricorde et ton savoir embrassent toutes choses, pardonne à un tel qui se repent et suit ta voie et préserve-le du châtiment de la géhenne. pour bénéficier de cette faveur ultime il nous faut faire l'effort de croire sincèrement en Dieu subhanahu wa taala mbokk yi beneen bi mooy di ñaanal jullit ñi bu yóbboo nga xam leen bu yóbboo nga bañ leen xam di ñaanal ñi gëm yàlla comme ni ko malaaka yi di defee yàlla wax na ni malaaka yi nga xam ni ñoo gàddu arash ñoom fu ñu toll ñu ngiy sàbbaal ñu ngiy sant ñu ngiy sargal yàlla wa yastaxfiruuna lillazina amanu ba pare nag di ñaanal njéggal ñi gëm yàlla lan la ñuy wax dañ naan rabbana wati wasiata kulla cheyin rahmatan wa ilma yow sunu boroom sa yërmande ak sa xam-xam ëmb na lépp waaye ñun li ñu lay ñaan mooy faxfir lillazina taabu wattabau sabilaka waqihim azab al jahim yow yàlla baalal ñi nga xam ni gëm nañu di tuub topp sa yoon te musal leen ci safaraw jahim suratu xaafir mbokk lii neex na nga tëdd dinaaw nelaw rek malaaka yi di la ñaanal yal na nu yàlla wërsëgal nu bokk ci ñi parce que ku ci bokk kat leer na yow bis sa lépp baax enfin amis auditeurs nous devons imiter les anges parce qu'ils détestent ceux qui détestent Allah subhanahu wa Sourate la Vache, verset 161 nous dit, Ceux qui ne croient pas et meurent dans la mécréance subiront la malédiction d'Allah, la malédiction des anges et la malédiction de l'ensemble des humains. Donc les anges maudissent les mécréants mbokk yi beneen bi mooy sib goo xam ne da nga koy sib kéefër ak képp ku làmboo kéefër sib ka naafeq ak képp koo xam ne làmboo na naafeq wax na moom borom bi subhaanahu wa taala suratul baqara mu ne lazina kafaru wa maatu wa hum kuffaar ñi nga xam ne dañu dund ci kéefér dee ci kéefér ulaayika alayhim laanatullah ñooñu sama rëbb wàcc na ci ñoom man yàlla wal malaayika malaayika yi rëbb nañu leen wan naasi ajmain mbooleem nit ñi dañu leen di rëbb suratul baqara laaya téeméer ak juróom benn fukk ak benn nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal nu njëkk ak mbaaxam ba boole ñu ci ñi nga xam ni malaaka yi saa su nekk dañuy ñaan boole ñu ci ñi malaaka yi di aar ci seen kanam ak seen gannaaw wërsëgal nu malaaka bi nekk ci suñu càmmooñ lu mu bind ki nekk sunu ndeyjoor fark defal nu dégg ak loole loolu yomb na borom bi yàlla na nu ko defal ذلك المنهوب يا عظيم الجاه زارك التسليم من يد التعظيم زارك التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international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 كتاب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ذلك المنهوط يا عظيم الجاه شئت للإسلام الإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله نحن